Euh, mu ngi dox si diggante ASC Guelwaar ak ASC Espoir ñu taxaw ak ki nga xamante mooy président zone bi muy Matar Gueye Matar ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen ziare bu baax waa Live TV. waaw bu toll nii tey jii ci teewaay ki nga xam ne mooy monsieur le maire Amadou Diarra di sa pare monsieur le maire Issakha Diop lan ngay wax ci final bi. waaw lu ñu def lu lu gërëm ñaari maire yi nga xamante ni à chaque fois que zone bi soxla leen dañuy ñëw taxaw non seulement seen présence mais aussi di jàppale ASC yi ak yi di leen jox yu am solo. ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy sunu ay parrain naturel ñu leen di gërëmaat bu baax a baax a baax. ñaari équipe yëpp dëkk sa même commune. yow nga nekkoon président ASC bu Espoir na la la def tey. waaw tey moom dañ toog toogaayu zone. toogaayu zone nañ toogee du wax ne ñaari équipe yëpp sunu équipe nañu muy Gelawaar muy Espoir yëpp sunu équipe nañu donc di ñaan yàlla que le meilleur lool daal mooy li moo bi ñu mën a sànni foofu. mu doon match bu metti ñu doon tey jii a 90 minutes. waaw football lañ 90 minutes ñu ngi si prolongation yi. ñu ñaan yàlla mu terminer si jàmm ku mën gagné moromam ñu ñëpp dellu si waat xam ni nawetaan léegi mu commencé waat nawetaan amul wàcc amul dem première division bu ñu paree rek dañuy commencé ñëpp waat si jàmm yaakaar naa ne euh, loolu ñu xamal sunu zone bi li fi amoon daaw nag incident bu ndaw la woon bu amoon fi ñaanuñu yàlla mu amati fii ñu ñaan yàlla fubal si jàmm ren ji incha allah. am na mouvement bu fi judd di xam na ni mu demee woon ba tey ñu fubal ko mais final bi tardé. waaw loolu c'est une grande première mu am mouvement boo xam te day jógee seen représentant yi ñëw taxawal benn kuréel boo xamante ne day xeex day xeex violence loolu duñ def duñ def lu dul lu ko kontaan si ñoom trop trop aussi si organisation bi di wax ni ñuy jàpp si match bi aussi luy am solo la ñu ngi kontaan si ñoom a baax a ñu déglu déglu message bi nga xam ñoom nañu lancé supporters yi incha allah